nekkoon ni waaw si saa si mais après dañ euh, maa ngi dajeek en fait euh, euh, dama jaaroon côté Kër mbay fal mm. xam nga banlieue bi moom dañuy sonn période nawet léegi nag ma dajeek benn maire mm. maire bi moo may moo ngi expliquer ne noo jeunes yi Ndakaar yi daal ñoo ñàkk jom quoi ma ne ko mais maire yow lu looy wax nii la moo tax nga ne dañoo ñàkk jom mu ne ma fii ngay gis jeunes yu taxaw mm. nawet bi di laal seen kër ñu naan woy gouvernement beeg yooyu ne ma ne moom en fait en Casamance foofu bu tawee euh, parce que ndox euh, saay bu amee inondation rek mooy amatul yoon ne ñoom foofu bu tawee rek da ngay gis jeunes yi génn léegi bu ñu génnee gis par exemple ni bon peut-être ndox bi am na fu muy fatt ñoom dañuy jug rek nekk ci quoi léegi après finalement ak lu mu taw taw taw te Casamance certes du euh, bon lu muy taw du taw fii mais après lu muy taw taw rek dañuy am jàmm comprendre nga neen mais fii jeunes yi léegi loolu nag da nga koy gis tamit ci journée set setal yi man jàpp naa ni euh, lu toll ni journée set setal peut-être euh, bon gouvernement bi gars yi jox nañ leen des moyens ñoom ñoo war a def yenn yi mais nag bon comme que inondation yi ak ñoom fekk nañ fi leen li ñoom ñëw nañu ne dañuy def journée set setal jàpp naa ni même au niveau des quartiers yow sa yenn jeunes yi tamit des fois war nañoo génn tamit Euh, fexe ñoom tamit euh, wane seen bopp si journée set setal boobu ndax loo xam ne nii peut-être bu ñu ko defee yow sa arrangement la jàpp naa ni ndaw ñi daal ñoom tamit war nañ see xaw a góorgóorlu donte tamit parce que bu fekkee ni gouvernement bi la ñuy xaar mu régler définitivement le problème des inondations Euh, je pense que c'est pas pour maintenant parce que tamit ça demande des milliards et des milliards yoo xam ne nii euh, loolu noonu foog maanaam mu am ay infrastructures yoo xam ne dañ koy defar infrastructures yi certes ñu am na yu ñu ciy defar même zone de captage bi boo xoolee démb tali bi dafa inondé Euh, pour nga jaar zone de captage problème la doon tey def nañ yaay une extension du du du bassin de rétention ah. léegi nag dañuy mujj di pomper waat ndox mi di ko dugalaat ci biir kanaal bi donc y a de choses euh, bo yenn côté yi zone de captage man yi ma jaar gis naa ni amuloon kii mais boo xoolee euh, côté Bourguiba beeg yooyu ah. ba léegi foofu moo ngi am ndox am na pont bu ñuy defar foofu ba léegi pareeguñu loolu la quoi léegi jàpp naa ni daal. Euh, côté inondation yi euh, bu fekkee ni euh, état bi moom moo ngi amal ay journée set setal war na fexe gën see associer les jeunes au niveau des quartiers ba pare xool quartiers yi nga xam ne nii surtout dans la banlieue comme ay Kër Massar ay Yëmbal ay kii parce que Yëmbal rek dégg naa lu mu taw démb bëri na bëri bëri taw na lool quoi parce que xool naa waaw waaw parce que xool naa kii waa ANACIM lu ñu annoncé yenn localités yi lu mu taw sax moo ëpp comme ay Yëmbal lu mu taw bëri na ay soixante millimètres xaw ma mais ay côté mbaaw yooyu defe naa vingt six millimètres laa gis donc y tout ça donc ba pare les population tamit ñoom ci période bi lañu ñu war a gën a euh, dañ leen war a gën a conscientiser euh, conscientiser par rapport au à l'évacuation des eaux parce que yow tey jii da ngay gis fenn nga gis benn kubéeru regard nga ñëw sàcc ko pour dem jaayee ko feeraay léegi boo ko jaayee feeraay benn borom bët bu neexul ñëw dugg si gaañu wala tamit keneen ñëw sànni si ay mbalit mais bu yàggee affaire yi day fàtt te loolu loolu la quoi donc je pense que tamit population sénégalaise seen wàllu bopp ils doivent être plus conscients par rapport aux enjeux xam ni tamit des fois dafa am yenn habitude yoo xam ne nit ñi ñoom ñoo koy def ba pare moom mooy impacté si ñoom. moom mooy impacté si ñoom beneen bi si topp moom mooy 100000 logements yi nga xamante ne président Macky Sall bàyyi na ko fi ñu dimbali ñi nga xamante ne seen kër yi yoonu ndox la. ñu dimbali leen euh, caser leen une bonne fois pour toutes parce que am na ñoo xamante ne inscrire nañ leen mais ba tey ña nga fañ toog yëkkatiwuñ leen pour yóbbu leen fa joxuñu leen li nga xamante ne mooy seen titre kër joxuñu leen seen numéro kër te am na ci kër yu bëri yoo xamante ne euh, parce que man très sincèrement Serigne man sama yaay daf ci bokkoon. ah ci 100000 mille logements yi Thiès moo ñi nga xam dañ leen a euh, casé nekk si ginnaaw lycée technique bu Thiès mm-hmm. donc foofu logement yaa nga fa du jeex du mais gars yaa ngi koy jaay. logement yi logement yi foofu gars yi dañ ko doon jaay. ñoo loo xamante ni c'est à dénoncer loo xamante ni loo xamante ni ñi nga xamante ni ndox mi dafa nangu seen kër maanaam dañoo ñëw dëkk si yoon ndox parce que sama yaay bi mu jënd këram daanaka si si si kaw pon la ko jënd. Ah, xam nga jigéen buy jënd kër ñu jaay la kër gi si kaw pon moom nag après jox nañ ko valeur këram ni mu toll ak lam ca def jox nañ ko ko wax dëgg yàlla mu tollook ñetti ñetti kër. Hmm. ñu jox ko ko. ñeneen ñi nga xamante ne li ñu li seen kër tollool ñu jox leen ko. mais am na si ñoo xamante ni ba fii ngay wax may wax dëkkuñu seen kër kenn délogé wu leen yóbbu leen fa te logement yi ña nga fa am na yu pare am na yu pareegul mais am na ñoo xamante ne ña ngay jaay parce que en face de en face de ñun am na koo xamante ne set millions lañ ko ko jaayee. te nekkul sax Sénégal. ci 100000 logements yi ci 100000 logements yi. Hmm. loolu nu ko gouvernement bi saytuwaat bu baax a baax. ba pare nag indi ci lu mu tuddati sax ay leeral par rapport ak gestion boobu noonu ñi doon gérer loolu noonu mooy 100000 logements yooyu noonu ñi ko doon gérer ñi nga xamante ni ñoom ñoo si war a bénéficier wu parce que seen kër yi dafa nekk si yoonu ndox ñan la ñu jox leen seen ay logement waa les victimes ñu mm. jox leen seen ay logement mm. parce que c'est très important li may wax nii c'est tellement tellement grave non mais non mais loolu loolu moom loolu moom lu am la c'est fait man maa koy dund man maa ko gis parce que parce que Thiès laa dëkk ah sama kër yaay la la dama fay dem dama fay dem souvent euh, donc man xam naa exactement cent mille yooyu de quoi je parle donc am na ci ñoo xamante ni ba léegi jotuñu seen am na ñoo xamante ni dañ dañ koy louer dañ koo jënd ñoom ci seen biir ba pare di ko defaat joxaat en location mm-hmm. di ko joxewaat en location maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoo ko sekkoon am na si ñoo xamante ni jënd nañ ko moomal ko seen bopp mm-hmm. te amulu ci benn droit mm-hmm. mais ñoom dañ ko joxe en location loolu nag lu ñu war a dénoncer la te lu gouvernement bi war a gën a bàyyi xel la pour que les bénéficiaires maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko moom dëggantaan ñu déloger leen yóbbu leen yóbbu leen fa nga xamante ni moom mooy moom moo di seen dëkk parce que euh, parcelles yooyu bari na ña nga fa fees dell am mais ba léegi ña fa war a dëkk xaaj ba dëkkuñu fa Omar. ma conformé la ma conforté la balaa kii di jël li ngay wax nii xam nga lu tax ma ma gëm ni dëgg la BRT bii BRT bi. Mhm. ñi nga xam dañ leen yëkkati woon dañu leen logé woon ak VDN3 bi bi muy jàll mhm. bañ leen yëkkatee Malika lañ leen logé état bi trent 37 hectares ak ay équipement la mu war a àndal yëpp pour ñoom bu ñëwee ñu casé leen foofu mhm. mais finalement xam nga nu mujjul pour lay wan ni Sénégal gii billaahi defar ko ku ko mën a defar man gisaguma la parce que xam la mhm. xam nga nu ñu def la municipalité en complicité te yàgg naa ko fii en complicité avec la hiérarchie da ngay gis ni dañ koy jël jaay ko ñeneen ñeneen mhm. ñoo xamante ni victime yi sax duñ ci bénéficier wu. dëgg la. victime yi dañ ciy daw a daw bay bëgg dee boo demee fi mu toll nii ñeneen lañ ko jaay ay vingt cinq million vingt million millions jumi jumiyaa mhm. jumiyaa defe naa jumiyaa la jumiyaa lañ nekkoon en complicité jumiyaa moo doon koy jaay mais bi ñu demee ba démasqué loolu démasqué ko si la retiré wu ci vente bi mhm. mais jumiyaa moo doon moo doon def publicité bi moo doon jaay di def affiche yëpp maire bi nag c'est en complicité ak ñoom. Mhm. gis nga pour walla ni fii scandale yi fi am. y'a l'administration bu si bu si seen loxo di dugg. am nañ yaakaar ci bi fi ne de. waaw parce que bi ñu ñëwee foncé la njëkk a yi am nañ yaakaar ci bi fi nekk kon nag nañ ko régler mu leer wax dëgg yàlla nañ ko régler surtout yi nekk à Thiès man dama si dama si insister bu baax parce que ñi nga xam ne ndox mi dafa nangu seen kër Thiès du jeex du xaaj. mais am na ci ñoo xamante ne ba léegi ñu ngi débrouillé toog fa. te ñu ngi jaay te ñu ngi jaay si logement yi ñu ngi koy jaay ñoo xamante ni dëkk ñii dëkk ñu Sénégal ñi ay immigré lañ ñi ngi ñi ngi fale ñii ay ex politicien lañu. wala bokk ay politicien lañu bokkoon ci régime bële. am nañ ci terrain yooyu noonu boo leen gisee defaraat ba mu jekk am na si ñoo xam ne dañoo defaraat dañoo dindi kii bi yokkaat ko. ak ci kaw defar ba doo xàmmee ni lii ci logement yi la bokk. mais ça c'est abusé na ci nguur gi def ay ah, ay ay ay jéego si wàllu boppam lu néew gi doole gi moom ñu jox leen ko quand milliards la ñuy dépensé pour plan Orsec yow léegi milliards yooyu ngay dépensé pour plan Orsec tey jii da ngay xool par exemple comme euh, Parcelles Assainies Kër Massar noonu la demee chaque année ils sont impactés par par les inondations yow léegi da ngay xool toutes ces zones la mais yow li ngay dépenser chaque année mën nga jël comme li ngay wax les logements sociaux là mën nga créer ay logements chaque année état mën na jël ay ay hectares a moom moo ko moom jarul mu koy jënd tabax bi rek lay def léegi mais nga jël déplacer les ces personnes là léegi après zone yooyu nga xool leneen loo loo loo ci def mm-hmm. mais tey jii bu fekkee ni à chaque fois même projet ñaajo boo xoolee les au niveau de Diamniadio mais da ngay xool ni fan lay mujj ay borom doole ay promoteur immobilier ñooy ñëw jënd appartement yëpp ñu ko ñëwee après bon ñu ñu def si lu leen neex boo waroon jaayee vingt millions jaayee cinquante millions yooyu la ñuy def loolu moom loolu dinañ ko yuuxu fépp mais ñi nga xam ne ñoo war a dëkk ca kër ya ñoo dëkkul ca kër ya Omar ñoo yow kii nu mu tudd sëriñ ñoo dëkkul ca kër ya te loolu c'est c'est vraiment dommage ginnaaw lycée technique bu lii lycée technique bu Thiès ci ginnaaw ah je sais pas c'est Thiès ci Thiès Ngent Cees ngent Cees mooy ngent yoonu ngent bi boo ñëwee ba si ba si ba si kii ba si jumaawu ngent bi foofu noonu venez là-bas ngeen constaté ko ngeen constaté ko seen bopp mm-hmm. tabax nañ ko defar nañ ko jox nit ñi seen caabi rek moom moo ci des am na ñoo xam ne jox nañ leen seen caabi ñu defaraat comme ku ci mel sama yaay jox nañ ko ay caabeem defaraat na defar karole ba defar këram wax dëgg yàlla am na ku mu dendal góor kooku tamit defaraat na këram ba mu normal parce que ñoom ci yoonu ndox la ñu dëkkoon mm-hmm. ñu jox leen ko wax dëgg yàlla si à saluer mais am na ñoo xamante ni fa ñu dëkk ba tey mi ngi taa kenn joxu leen ko te kër yi ñi ngi koy jaay loolu kay man maa ko wax mm-hmm. <laughs> nañ ci def ay gëstu yow kii nga tu es un témoin oculaire nañ ci def ay gëstu mhm. te ñi nga xam ne ñoom ñoo moom foofu noonu ñu ñu jox leen seen ay kër wax dëgg yàlla c'est important loolu moo nekkoon euh, une source a ak benn brèche bu ndaw buñ ci ubbee waxtaanee li nga xam mooy inondation yi dañuy ñëw léegi ci yeneen journaux yi naka la ñu xëyee tey je pense bien Moussa c'est avec Aliou que ça se passe yeneen journaux yi topp suñu ginnaaw naka la ñu xëyee tey